والقلم وما يسطرون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 depuis le 24 juin laa ko déposé woon lan moo tax ngeen bëgg ne gouvernement bi na ko déposé waat dama déposé ko pare li gën kay mooy génn leen ko ñu wote ko mu jeex benn yoon bu fekkee li ngeen di wote dëgg la si yéen kon jàpp naa ni loolu amul sens monsieur président boo xoolee tey jii may wax ak yow ci suba bi ma xëyee déposé naa projet loi boo xamante ni day def peine de mort loi baa ngi déposé naa mi si table kon jàpp naa ni ñaar yooyu yëpp mi ngi seen kaw ko jàllewul yéen noonu sénégalais yi kon jàpp naa loolu ay wax la man nag monsieur le président yéen Sénégal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 Macky Sall en 2012 ba 2024 jàpp na Cheikh Béthio tëj si kaso bi jàpp Karim Meïssa Wade tëj ci kaso bi jàpp Khalifa Sall tëj ci kaso bi jàpp Cheikh Abdou Bara Dolly mii wax yow tëj ci kaso bi jàpp Aliou Aliou Aliou Badara Ndaw bu Kaolack tëj ci kaso bi jàpp doomu Serigne Mourtalaam Sëñ Touba tëj ci kaso bi jàpp Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye tëj ci kaso bi jàpp Mbaye Touré jàpp 1600 détenus politiques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 yéen a toroxal kilifa diine yi yéen a nangu seen passeport diplomatique yi ba pare ngeen bëgg nag dëgg fi ba toog di toroxalaat askan wi loolu duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg kon monsieur le ministre yóbbante la boo xam seen demande sociale pour le peuple sénégalais mooy nan tas assemblée nationale ba pare ñu jàpp leen tëj si kaso bi parce que ñii waruñu ñoo dox yéen warut leen dox si dëkk bi yéen yéen a sàcc xaalisu réew mi yéen rey nit ñi kon jàpp